Africa, Africa, Africa 7. asalaamaaleykum marhaban bikum daleen ak jàmm ma xëyati ñëwati waxati ngeen déggati li yéen kaay yi xëyati bindati. dooree ko ak journal Les Échos mi xëyee ki am way wudul fay ba mukk tax xel yépp daal di dem ca xanjook yandate xel yi dem ca jigéenu ndeer Binta kamara bàyyi na fi woy wudul fay ba mukk journal Les Échos nañu Binta daal dafa bañ ba xëy de dafa bañ a bañ a bañ ba xëy dee ndax ba nga xamee ne kookee def ñaawteef googi daal di na koy song ngir daal di koy sàkku moom moomee di Binta Camara dee da ko gënal rek ñàkk loolee nga xam ne moo di ak ndawam tax mu jaayante kookoo gi ba mu mujjee rek nag daal di faat bakkanam ba tax journal bi di Les Échos di bakk ko kookee di Binta kamara ndax ak njàmbaaram ak bëri jomam ak mën a bañam ba tax moom momi di Binta Camara mujjee rek daal di dem wuyu ji boroomam mu ngoog Alioune Fall lay wuyoo aduna day bëgg a jeex wala jom fula ak ngor mooy bëgg a jeex Alioune Fall di ko jege woon lool papay kookee nga xam ne mooy Binta Camara moom daal moo ñëw daal di faat doom ja vox populi nañu paf mi di Pape Alioune booy wër nit ku lëndëm ba yegg ci moom booya boo taxaw kii moo raw xinuk timis de vox populi nañu moom moomee di Alioune Fall gannaaw ba nga xamee ne def na ñaaw teef googi ba noppi nekkoon ca buntu kër njabootu Binta Camara googi di taxawala gu baas ngir waajal dëj wa ca la ko rek nag takk der ya di waa police daa di fekk foofu daa di ko fay jëlee yóbbu ko ca dung siin laataa moom moomee nga xam ne mooy Alioune Fall nangu ne moom demoo jëf-jëf ju ñaaw jooji enquête nañu paf mii daal loo ci xamul moom moo ñëwoon de ngir dalal xelug ñoo nga xam ne ñoom ñooy njaboot ga ba noppi doon jàppale tamit enquêteur ya waa xanaa lii moom mooy dëmm rey la jaale la ci loolu ndéem ay moom du yem ci boppu boroom gardien wu kër ga moom ba mbir ma xewee ñu daal di ko fay fekk daal di koy jàpp yóbbu ko mu nekk ca garda wi le quotidien le quotidien nañu moom moom yi dee na sant yàlla de na sant yàlla bu baax ak police bu Sénégal ak seenu xarañteef ndax ba nga xamee ne daal di nañu defa blanquette ba gis ne kookee di Alioune Fall moo def ñaawteef yi moom moom yi di Asmalik Diop nekkoon gardien ca kër googi daal di nañu koy feexal ci jamono ji mu dellu ca njabootam mu ko defee ma daal di ci beneenub jongati journal Les Échos mi xëyee Lamine Diack bàyyu Massata Diack moom mel na nit dee yëf yaa ngay gën di métti ci kawam de ndax gannaaw ba nga xamee ne ñeenti at yàlla moom moomee di Lamine Diack borom i de af tagga tembe ca réewum France gannaaw ba nga xamee ne yoon daa dinay jël dogal tere ko mu génn réew moom yi moom moomee eh, di Lamine Diack mbir may gën di wéy di metti ci kawam eh, ci jamono ji lanu bëgg ci dossier am mooy daal di koy renvoyer ca tribunal muy nag mbir moo xam ne nam koy laalee jooja di Massata Diack mu jëm ci la nga xam ne moom lañ leen di toppee muy ab mbuxum ak luubal ci wàllu koppar jëm eh, ci loolee nga xam ne mooy mbirum dopage di ñoo xam ne dañoo jàpp ne ay athlète lañu waaye dañoo joloon ak ñoll eh, jëfandikoo ko ba tax ñu def ay performance yu ñu manul waaye nag mu mel nii ci loolu ñoom waa i 2 dañu caa nekkoon rek ay complice mbir moomee nag wéy di topp njabootug Diack gile ma tàng source a mu mel ni kuy tànqam lu nag mettit yi nga xam ne daal di soobu ca géewu politique ga fekk fa ki nga xam ne mooy borom PIT Ibrahima Sène lay wuyoo moom bàyyi leen a seen nee na dialogue politique bi li ci wér te wóor mooy mën na cee indi ay xalaatam moom Ibrahima Sène la mu gis nee na la ko dale ca Léopold Sédar Senghor ba ci waa da jaaree ko ci Abdou Diouf ab dialogue daal mosu fee jur lu am njëriñ maanaam. ay dialogue naxasaxandang rek nag la nu fiy faral di gis ki nga xam ne moom moo fi amaloon li ñu duppee code consensuel ni ki atum 1992 ne bi la yoon daal bu baax bi la war doon de ndax ku jëg politique gi ndeem ñoom wuyu ji nañu boobee woote dañu ko war a teg ci yoon bu ko defee lépp daal di jaar ci yoon mu mujjee rek nag jur loo xam ne dina amal njëriñ askanuk Sénégal mu ngoog ma daa di jógee ci politique ba soobu ca sport ba takk say godaas dugg stade fekk fa stade yéene kaay mi xëyee ñeenti doomi pendanaar yi mu duppee le quartier gagnant de Cissé muy Mendy di góol bu gaynde yu Sénégal Kalidou Koulibaly défenseur ak ki mu duppee le taulier di Idrissa Gana Gueye ak kookee nga xam ne mooy borom Liverpool Sadio Mané journal bi ne ñii daal li wér te wóor mooy Cissé dina mën a compter ci ñoom ñii dee ngir Coupe d'Afrique des Nations bay am ca Égypte stade yene ba tey daal di dellu si waat ci ki nga xam ne mooy ji nekk France gi di Kylian Mbappé amu ne dem na stade yéene ba tey dem ca Ghana fekk fa Asamoah Gyan moom nag daa dinay gedd de la ko waral mooy Barassa maanaam capitaine la bëgg a doon de ñu xañ ko ko mu gedd équipe nationale bu gana daa di dem bu ko defee ma daa di takk say jajj def samab sangoor bàkk dugg ca arène ba fekk fa sunu làmb mi xëye borom géejo waay Lac de Guiers numéro 2 journal bi ne ñu Lac mi de wóolu na boppam de ndax mu ngay waat nee na li wér te wóor mooy Boy Niang moom yi de booy ñan 2 ci suuf de la nu koy foree saa yoo xamee ne la mu cay teg nag moo ko xam waaye lag ne li wér te wóor mooy dina xeex xeex bu mësta xeex ndax li wér te wóor mooy man Lac de mi bokk naa ci mbër yi daq bëre ci arène bi ku ràcc jëmale sa kanam mu nga ngoog ma daa di jógee ca làmb ja dellu si ci réew mi quotidien mi xëyee dee gu metti gi am ci réew mi mu daa di ñëw di ko lim ba ca njëkk réew mi quotidien nañu ca yara ab tànk de lanu fa forde ca tefes ga benn ouvrier ñu daal di koy faat ca kër njaayloo benn xale bu jigéen ak benn xale bu góor bu am juróomi oto mbëkk leen beneenub ndaw bu am ñaar fukki at ñu fekk ko mu faatu ca Elenkin beneenub waay bu am juróom benn fukki at ak benn ñu daal di koy fekk mu daal di faatu moom tamit ca yaraax ci ab làkk mawti mii li nañu de lu mënti am ak lu mu mënti doon lii doy na wax